تبارك الله يا يالما الله سبحانه وتعالى فايدين يا يالما يالا سامدين اي دار بسم الله جيرجيف خالد عثمان كون نك ديمب جيغي وون سي مبوك جي تفسير يالا ني سي القران واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا الله دا لك حديث القدسي من انا الرحمن وخلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته kon nag ñu xoolaat bu baax a baax a baax a baax ragal yàlla ci mbokk gi mbokk nag ah la ca góor ga waxoon rek borob bi jàbbu rafet ba chebat alhamdi cheikh alhaj abdul aziz si dabaax nee na ñett yi tax mbokk defaru nee na ñetti bërëb la yu xees pecc ci cër yi benn saxu ci kawar mu ne couleur boo mën a am côté boobu day xees ñu ne ko papa ban la ak ban ak ban mu ne tànk dénk ak làmmiñ papa nu muy demee mu ne tànk da ngay dox ba mbokk defaru dénk dangay jëf ba mbokk defaru làmmiñ da ngay wax ba mbokk defaru nee na mbokk dañ koy wax di ko jëf waaye itamit di ko dox Ali Ousmane looñ ci indi tey ci barakallahu Chérif al mm-hmm. Mm-hmm. daal alalu yàlla la mm-hmm. mooy xadis bi nga tijjee léegi mbokk daal fa tabarakallahu alalu alalu yàlla la yàlla subhaanahu wa taala moo ñu digal pour ñu fonk mbokk shérif waaye gis nga mbokk bi ëpp doole léegi moo tàmbalee yàqu mooy mbokkum pas-pas xam nga bu ñu waxee mbokk rek fii Sénégal moom li ñuy sóor mooy ki nga bokkal ndey baa ngeen bokk baay wala ngeen bokk nangam ak nangam euh, mbokk googu mais mbokk googu du mbokk Chérif mbokk pire mooy ki nga xam ni yéen yéen a bokk pas-pas mooy yéen a bokk gëm yàlla mmh. boobu moo ëpp doole ci mbokk yi parce que mom nga amel ñetti ak yenen mbokk yi bi dang koy amel ñaari ak batay yena bokk pass pass benen mbokk bi ben ak nga ko amel moy ki nga xamanteni yena bokk juddu mën na am way bokku len diine kon buñu dé wax mbokk deug dal ci l'islam moy diine gis nga yàlla bu né ki gëna tedd ci biir mbokk gi ak fami bi gëna tedd ci fami yi moy ke gëna ragal yàlla ci biir fami ba koka mo gëna a ra gën ci mbokk ga kon moy wone ni ragal yàlla fa la mbir man gis nga alquran mu ngi wax ni innamal mu'minuna ikhwa mbokk yi euh, jullit yëpp ay mbokk lañu. Mhm. yàlla ni fa aslihu bayna axawaykum mhm. kon ndekete man tafsir Abdourahman ak ki nga xamante ni mooy par exemple Abdoulahi Gaye ñu bokk ndey ak baay Abdoulahi gay daal di doon ab jullit tafsir Abdourahman doonul jullit ndekete du mbokk am nañu lu ñu séparé. Mhm. parce que tey même bu dee doom ji nga xamante ni man maa ko jural sama bopp bu ñu bokkul diine du ma doon du ma ko doon. doom ji ma bokkalul diine. tey bu ma dee woon moom du ma doon moom bu dee woon man du ma ko doon mm-hmm. alalam sama yoon newu ci jabar ji xam ne dama ko takk ci farata yàlla ak sunna muhammad mm-hmm. ma nekk ci benn diine mu ne ci beneen diine ci lislaam moom bu deewee man du ma ko donn man bu ma deewee moom du ma doon kon la kan kay mbokk bu ñu ko deex diine moo tax suñu borom subhanahu wa taala nag ni ñi gëm ñëpp ay mbokk lañu kon fa aslihu dee leen yëwanal dee leen defar bayna axawaykum ci diggante mbokk gi waay waay leen defar ci diggante mbokk gi Chérif nan la ñuy defaree ci diggante mbokk hmm. mooy boo nekkee ci biir famille hmm. yàlla may la nga am tuuti jot Mm-hmm. del sol sa dàll di dem di seeti ku feebar del dem di def nangam di def nangam ak nangam. Mm-hmm. boo nekkee ci biir famille te yàlla dogal sa jot bariwul waaye am nga wërsëg. Mm-hmm. loo man dimbali ca famille ba dee ko dimbali. par exemple boo yëgee ku feebar. jàppale ko boo mënul demit yónnee fa dara surtout léegi yónnee dara yomb na yaa ngay defar mbokk boo bokkee ci biir famille yàlla may la nga yor kàddu comme shérif maam yi comme ni nga koy defee démb maa ngi gis ji lu baax lu ne wax ko ci taxawaay fa tabaarakallaahu ci liberté 6 sa làmmiñ sa kàddu rafet na nit ñi jox nañ la cër loo dégg ci mbokk gi demal nga dox ko sérif mbokk dafa jaral lislaam ba lislaam li mu gën a bañ ci bàkkaar yi mooy wax lu dul dëgg waaye pour defar diggante bu yàqu lislaam may na nit ki mu wax loo xamante ni du dëgg moom la ñuy tuddee islaahu zaati bay bi yëg naa ni diggante jibi sàmba ak sérif maami san ne ma gis sérif maami wax ko lu rafet lu ko jibi sàmba wax te fekk gisuma sax jibi sàmba mhm. gis jibi sàmba wax fekk gisuma sax shérif ñoom ñaar bu ñu dajee bu ñu jubboowee ak bu ñu jubboowul man damay am tiyaaba xanaa kon mbokk a ngi noonu kon lislaam li muy bañ wax lu dul dëgg yëpp bu demee ba daganal ko ci diggante bu yàqu mhm. mbokk lay bañ mu yàqu suñu boroom nee na saa bu mbokk daggee mhm. saa bu mbokk daggee aras day yëngatu fi ma toog day yëngatu mhm. malaaka yi ne yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi sa siis baa ngi yëngatu baa du damm yàlla ni déedéet day baj baji ndaxte dafa am mbokk bu yàqu ca àdduna yàq mbokk bari na dafa am ñett ñoo xamante ni boo leen gisatulee bu leen laajte yaa leen ba ndax nag koo tane te doo ko dimbali boo ko gisatulee yow yaa ko bàyyi koo xam sikkam te doo ko nëbbal doo ko suturaal boo ko gisatulee yow yaa dagg mbokk googu koo ëpp doole te doo ko muñal boo ko gisatulee yaa ko bàyyi te kat yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne jikko yi ku ko jikkoo sa yaram araamal na safara ñu ne ko yan jikko la mu ne silman qata aka nga jokk ku la dog ku la dagg ba ne dootu la laal dootul jëf ak yow dara dootul séq ak yow dara nee na boo bëggee am martaba ca yàlla kooku ngay dem nga jokk ko moom laa fi wax daaw ma ne la ñun wolof wolof xamul baatu jokk ndax jokk ku la jokk du jokk may sa mayaakoon du mbaax fay bor la waaye ku la dagg ba ne dootul la laal dootul jëf ak yow dara dootul séq yow dara nee na kooku ngay jóg nga dem nga jokk ko réew mi nag li may wax toujours bu ko topp gënu la bu ko déglu raw la yooyu ñooñu la ñu warul déglu ñooñu di indil wax jooju mhm. kon nag mbokk gi dañ ci war a xool suñu borom subhanahu wa taala xam ni du ku la neex ngay xool bokk ak moom yàlla ne yaag diw yéenay bokk gañu yaag diw yéenay bokk meen yaag diw yéenay bokk dëkk ca pénc ma yaag diw yéenay bokk diine waaye la nga wax rek mbokk pas-pas mooy mbokk waaye nag bu fekkente ni da ngeen bokk pas-pas waaye nag bokk deret moo xam ci ndeyjoor wala ci càmmoñ mm-hmm. mooy gaño wala meen mm-hmm. ngeen bokk ko ah bu boobaa la nga waxoon rek al aqrabu awla tafsir abdourahman macha allahu aydara fa tabarakallahu ñu ngi woon ci islaahu zaati bayni defaru ak mbokk mhm. defar ak mbokk shérif shérif mhm. ñun li ñu waroon a boole tey moo ñu tàggatle mhm. xam nga lan moo ñu waroon a boole mooy lislaam xam nga lan moo ñu waroon a boole mooy tariqa yi boo demee tariqa murit bu qaadir bu tiijaan bu laayeen ñoom ñëpp ñoo bokk kàddu kàddu gi mooy astaghfirullah kaddu gi mooy laa ilaha illallah kaddu gi mooy salaatu ala nabi waaye Chérif léegi da ngay rus dugg sax ci internet bi mhm. boo duggee ci internet bi yaa ngi gis koo xamante ni mën naa am ab murit la mu nga ca deru tiijaan ya mhm. yaa ngi gis ab tiijaan mu nga ca deru murit ya mhm. ab xaadir mu nga ca laayeen ya laayeen ba mu nga ca xaadir ba dem nañu ba te borom Tuuba radiallahu taala dafa ñu waxoon ni fa kullu wirdin yuridul murida لحضرة الله ولم يحيدا سواء انتمى إلى الجيلاني أو انتمى لأحمد التجاني أو لسواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب دمنا بمن برمت بابني فلا تعادوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله برمت باب دمنا بني bu leen def noonu ku ngeen gis muy wax laa ilaha illallah même bu dee ab jullit bu sàggan bu mel ni tafsir gay di wax laa ilaha illallah Serigne Touba nee na bu leen ko def noonu jéem leen a négocier ak moom waxtaan ak moom wax waar ko delloosi ko waaye bu leen ko def ab noonu gis nga ci way wi ma wax sànq mm. def ni mbooleem werd yi yëpp te muy jokkale nit ki ca yàlla moo xam bu Abdou Khadir Jeylaani la mhm. moo xam bu Cheikhuna Tijaani la wala boo Abul Hasan Ash-Shaazili mhm. wala beneen bu mu mënti doon wala sax nga ni ñi amul weer werd moo xam alfalaax la moo xam Ibaadu Rahmaan la lu mu doon association wala mbooloo bu mu doon boo xam ni ca yàlla la jëm mhm. Serigne Touba radiyallahu taala anhu nee na yëpp ca yàlla la jëm Serigne Touba nii xoola noon na tudd bosam waaye tuddul bosam sawaaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad al tijaani aw li siwaaw ma min al aqtaabi gis nga mënoon na wax boosam waaw waaye tudd day bañ mu mel ni day propagande moo tax tudd ko xam nga ñooñu ak mbaax lañ dund wallaahi dëgg la mbokka mële ca tiwaawoon maam Sidi Hadji Malick daal di ñëw ni ak turuxu kulluha ila arrahmani muusilatun muusikatun yaa jaani mbooleem tariqa yi dalay jokk mbooleem tariqa yi dalay sóob ñu ne ko si Malick fan la ñuy suuf fan la ñuy jokk mu ni ci yàlla ndax yàlla moo wax ne yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata yàlla moo ni yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te ngeen wut lu leen di jokkale ci yàlla baatu wasila nag du ma ci nekk ndaxte ñun ci mbokk la ñuy wax ñii ni julli la ñii nangam la ñii ni loolu yëpp du ma nekk waaye daal li ma a wax daal mooy tariqa yi nit ñi ne internet yi léeg-léeg mhm. benn tafsir gay wax na lu ñaaw wala mu def la njabootu kër mam Seydi Hadji Malick la tafsir la concerné waaye concerné wul waa kër maam Alaaji Malick santuñu ko tafsir la concerné waaye concerné wul tariqa Tidiane mm. tariqa Tidiane santuñu ko même tariqa Tidiane ak boole mag ñaa kenn ku ci nekk dañ lay tere nga wax ci deru asgor naka sudul noonu mm-hmm. léegi nag da ngay gis benn tafsir gay bu wax étiquette bi mu takk étiquette Tiwaawan la wala bu Tidiane la wala bu nangam la ñeneen profité ca lu nañu yekk ko tariqa ba lu nañu yekk ko ko mbokk yi nañu xam ni di Sénégal gii hmm. bu ñu fi waxee di fi wax di fi wax ba taal ko hmm. la koy fay du yomb Mhm. te Sénégal gii bu fi murit yi waxee ba tiijaan yëpp dem safara nañu xam ne murit yi dinañ ci am ay bàjjen ak i tànt tiijaan yëpp bu ñu fexee ba murit yi dem safara tiijaan yi nañu xam ne dinañ ci am ay bàjjen ak i tànt mhm. parce que Sénégal kat kenn mënu fi génn daat ni man maa mbokk yoo xam ne ñëpp tarixa bii lañ bokk mhm. da ngay am ku bokk fii am ku bokk fii am ku bokk fële comme nag tarixa yi ñoom ñëpp ci yàlla lañ ñuy jëme ñoom ñëpp ci yàlla la ñuy wax waay waaye nañu rafetal nañu moytu wax ju ñaaw ji am na loo xamante ni mbirum àdduna la waaye du yàlla انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واي واي بو ديغي لو مانا ci ab tariqa mën a defar ci diine mën a defar ci réew moo xam ci sa sëriñ nga ko jëlee ba fu mu doon publier ko ñëpp dégg mhm. waaye waay waay boo foree loo xamante ni lu ñaaw la lu mën a yàq la loo xamante ni diine rafetluwu ko tariqa rafetluwu ko mbokk rafetluwu ko waaye mhm. waaye supprimer ko nga yemale ko fa bul ca commentaire bul ko publier parce que laa yuhibbu llahu ljahra bi suui min al qawli mhm. yàlla bëggul kuy siiwal wax ju ñaaw rawati jëf ju ñaaw rawati vidéo bu ñaaw kon nag mbokk yi tey daal fa tabaarakallaahu ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci wàllu mbokk mbokk gi nag bu ñu koy wax dëgg mooy mbokkum lislaam Cheikh Sidi Maxtaar day dox na ci lu mu ci mën ba dem wuy ji boroomam dëgg la mbooleem baayam ya nga xam ne ñoo ko jiitu mm. ak magam ya niki sëñ baara mm. ñoom ñëpp dox ca la ñu man ba dem wuy ji seen borom. Mm-hmm. fa tabarakallahu euh, sëriñ Abdul Aziz Al Amin. noonu ñii fi nekkit di sëriñ Muntaqa Basiru di sëriñ Bay Si Mansour dox nañ ci lu ñu man mm-hmm. ndax kere gis nga ba yàlla dogalee la xew ca Tuubaa xew fa sëñ Bay Mansour Sow daa dajale mbooleem njabootu maam Seydi Aji Malick ànd ak ñoom dem Touba kon nag ñun taalibe yi nañu yem palaasu taalibe fa tabaarakallaahu mhm. ñu xam ne ñoom la leen boole ca Mbàkke baari mhm. muy maam Maara Mbàkke mhm. li leen bokkee boole di lislaam moo ëpp doole fuuf te ñoom ñu ngi sàmm lu ñu mën ci lislaam yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu fekkee suba ak jàmm Chérif bu dee da ngay tàggoo bismillah jërëjëf Xaali Ousmane bu ñu xoolee way yi rek yi sëñ Bamba wayante ak Seydi Hadj Malick way jox ko jox ko nga gis mbokk googu ak cofeel googu xool diggante Serigne Saliou mii barki démb ak Serigne Abdoul Aziz Sy li ñuy defante ay ibn Xadim Taaha boobu waari si sirrihi ñun war nañoo régler xale day yem place xale mag ñi fa tabaarakallaahu baax gi ñu baax ah ñun de xajuñu ci yal na yàlla barkeel li ci des yal na yàlla dolli xéwal yi yàlla dolli barke yi tafsir li nga def ci jokku mbokk tey am na solo lool wax dëgg yàlla ñun ñii ñëpp war nañu mën a delluwaat ginnaaw xam ni mag ñi lu baax rek lañ fi def lu rafet rek lañ fi def luy mbokkale rek lañ fi def kon nag yàlla bu mu yàqoo ci suñu loxo jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla sàmm jeunesse bi ba ñu xàmmee xàmmee ràññee mën a ànd ak dal kon nag bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha وابنيهم السبطين أعلام الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم آه خالص من جري جفتي أين رأى بسم الله بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى am na wayi garal yo xamanteni mo xam ci côté tidiane bi la wala murit bi wala xaadir bi wala laayeen bi am na loo xam kenn waru ko way ci public ndax te boko waye yaangi blessé te Serigne mawdou si mu bax mi yal na yàlla yokk ko faram danaan tafsir moytu len di wax di blesse pass passu jambour ci lu wér ci lu xale yi la rek jeune nouvelle génération wallaay wallaay yal na yàlla gindi leen yal na yàlla delloo